أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ñi nga xam ne ne yéen a topp ci seen bu mag bi seen bi nga xam ne ne njariñ ak xamle ak jàngale moo fa tax a jóg mooy Kun Fayakoun 236 nga xam ne ne pour àdduna bi yépp mën a defal seen bopp wala ñuy mën a jariñu bari moo tax ñu leen koy jox tey nag ñu ngi leen indil loo xam ne ne dafa bari léegi ci réew mi muy nopp waaye nopp bii nag moom pour sa jëkkër daf la woon ginnaaw nga bëggaat mu jublu la lu déggal la muy sa jabar waaye talsam la talsam bii ngay bind dugal turam jox ko mu naan bu ko naanee rek bu fekkoon nangu laa jox ayay dana la jox ay bu fekkoon sa jabar dafa dem nungootu ta wax si yow dara boo ko joxe bu xaf na ko naan rek muy sa jabar muy sa jëkkër na ko naan en tout cas daal naan daal lay bañ waaw képp koo bëgg mu sopp la bëgg la jox ko mu naan ko képp koo bëgg mu topp sa ginnaaw loo ko laaj mu jox la fexeel ba jox ko saafara bi mu naan ko mi ngi nii talsam bi ni ma ko bindee nii ngeen koy bindee après da ngay tourner waat tur bi te nga dugal turam boo ko dugalee nag nga def ko tuuti saafara buy naan kafe nga fexe ba boole ko kafe gi buy naan lenn yaa xam daal boo koy ba mm, lu muy naan rek na nga fexe waxuma nag muy dem ci ceeb du dem ci ceeb du dem ci laax lépp loo xam ne daf koy naan da ngay fexe ba mu naan ci waaw incha allahu rabbi bu ko naanee lépp loo ko wax moom lay def te dana toppaat sa ginnaaw waaw incha allah nañ ñëpp abonné yéen ñi nga xam ne nag yéen yéenay doog a jot ci chaîne bi ngeen abonné tey partage vidéo yi te di ko sem